jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu GTV jërë ngeen jëf ci teewlu bi di jégalu it euh, ci retard bi euh, bisimilah ci xibaaru ngoon si léegi léegi ñu wax leen li ci gën a fës. li ci gëna fass nak bokku bokk na ca déguerpissement ba am ci Petersen nak ambulance yi nak ñom ñangay ah, ñaxtu lolo waral sax ñu amon nak jàkkaarloo ko taskatu xibaari ah, tay ji ci altiné bi fofu ci centre culturel leopold sadar Senghor ci Pikine yile commerçant nak lu leen nakari moy dañ leena daal di fa nga xamne fa lañ doon daané sen doolé ah, ngir rek BRTB tax ñu daal di leen fay jëlé ci bir xibaar nag dinañ tewlu sen kàddu Mansour Diassé mo leen talal ap micro juróom eh, ci loolu nag ñu ñëwaat ca sommet OCI ba kii di eh, professeur Babacar Samb xam ne ne Sénégal jëlaat na li nga xamante ne moom mooy place am bi moom eh, maanaam ci wàllum leadership place bi nga xamante ne nag moom la wax ne moom moo ko jëlaat ki ko wax nag di professeur Babacar Samb nekk spécialiste ci monde arabe bi nekkoon tamit ancien ambassadeur du Sénégal foofu ca Égypte dinañ ci ñëwaat ci ay leeral ci biir xibaar yi ci biir xibaar yi dinañ wax ci xibaaru bitum réew ca Tunisie la ñuy jëm nag ginnaaw nag ab semaine boo xamante ne nag dañoo daal di euh, démantelé nag ay camp yoo xamante ne dafa amoon fortune te ay migrants daal di ca nekk ca région bu Sfax autorité tunisienne yi nag daal di nañuy euh, raxas ba mu set yeneen ci ay campement foofu ca Tunis benn nekkoon ca parc quartier d'affaires bu lag bi beneen ba nekkoon ci. siège organisation internationale pour les migrations dinañ ci ñëwaat ci bir xibaar yi ak ay leeralu Fatmata Seye mbokk yi lool mo fess ci bi ngeen ñu ñu mu leen ko doon wax ci li gën a fës euh, professeur euh, Babacar Samb nag xam ne ne ab renouvellement politique am na ci wàllum euh, diplomatie Sénégal nag daal dinay jëlaat la nga xamante ne moom la moom ci wàllum leadership ak défense jëmale ci wàllum Palestine di ab réew jullit bu ñuy teg nag ay fitna spécialiste bi ci monde arabe bii di Babacar Samb nekkoon ambassadeur du Sénégal foofu ca Égypte nag moom daal saluer li nga xamante ne nag moom mooy euh, taxawaayu njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar fay euh, jàppale nag li nga xamante ne def na ko mi wàllum rupture euh, def na ko ni ab ñàmbarte ñu teewlu ci professeur Babacar Samb moom nag seqoon na waxtaan ci téléphone ak Fatoumata Seye sommet bi nga xam ne bi la mooy réunion bu mag bi nga xam ne mooy dajale Manam Kili Foyou Mak, mwenye chef d'Etat, wala mwenye premè mnist, wala afèr etranjèl, yonnen yon, osi, euh, manam mhm. euh, organizasyon, mwenye mwenye dagyele, deki adouniye, am majorite mizulman, men minorite, mwenye mhm. te yon kèche banyoul si samdèk dimas bin, defa din nekadi, lou am solo, mwenye wakèkofo. Nya mhm. relbèd, semdèmèy Japone, prezident, dafa am euh, vraiment taxawaay boo xamee ne bile mooy taxawaay bi Senghor amoon ak du Diouf ci mbiru aussi yi vraiment farlu ci lool. ndax li mu wax dafa di nekk di loo xamee ne lile ah ku ko dégg moo xam jullit nga wala doo jullit di nga xam ne moom maanaam li ñuy wax crise humanitaire. ak tolérance humaine maanaam li nga xam ne nit ñi ni ñu war a jijje saafontoo si seen biir mhm. ak li nga xam ne xew foofu garaaw bi mu garaw dafa nekk di loo xam ne dafay euh, xotti yelleef ak àq doomu aadama mu ne loolu nag dafa dañu dañu war a farlu ñu ñeet ñu taxaw si euh, te itam ñi nga xam ne mooy mbootaayu xeet bi taxaw bu mu waroon taxaw daal des na te war nañu gën a farlu pour maanaam yëf yi dakk ñetteel ba tam wax na loo xam ne de lu am solo la moo di mbiru lislaam euh, ndax xam nga euh, lislaam def ne modération maanaam lislaam bu ëpp ak nangam loolu dafay wane mhm. li ñu doon wax ci président na salafit laak nangam nangam yooyu yëpp du ci dëgg ndax dem na seeti chef religieux yi dem ñëw sommet islamique Mhm. Wafa fa wax boo défendre l'islam ak taxawaayam ci modération jërëjëf fondation bii di Frédéric Ebert nag daal di nay euh, ci euh, fukki fukk ak juróom-benneelu yoon ci ab euh, programme am programme de leadership politique nag daal di nay jox ay ndaw lu tollook fanweer ak juróom-benn ci ay ndaw jeune leader ak membre parti actif parti politique nag daal di leen jox ay diplôme ci ab tàggat bu leen doon tàggat ñu teewlu ci Lamine Diédhiou ci ab compte lu tolloo ci fanweer ak juróom-benn ci ay ndaw yo xamantene dañoo bokk ci ay kuréel politique ñoom lañu tàggat ci fondation Frédéric hébert formation bi li ñu fi jublu mooy tàggat xale yi bu ñu doon ëllëg ay leader dañoo ñëw tey ci invitation fondation Frédéric hébert pour fekkee cérémonie bu ñuy remise d'attestation euh, jeune leader politique donc euh, ci leader politique yooyu am na si bokk Pastef ak yeneen parti politique ak organisation de la société civile donc ñu leen di jaajëfal di leen féliciter di rafetlu formation bi di leen encourager ci taxawaay bu ñu am donc euh, di leen euh, ñu góorgóorlu en tout cas ci euh, seen taxawaay par rapport ak seen engagement seen biir parti politique yi seen biir organisation de la société civile moo tax tey ñu ñëw teew en tout cas pour jàppale len jaajëfal len and ak ñom pour en tout cas liggéey Sénégal incha bu ñuy sukkandikoo ci ñu taxamal formation bi ñom jappal ni li ñu mel dafa baax ci carrière xalé yi duggu ci walum politique. si ñew tay parce que nos jeunes frères yi nga xamné ñom ñoo fi doon jël sen ay attestations nek ay leaders engagés dans des mouvements dans des associations mais nek ñoo xamné tamit dañu gëm ni jang bi leni jangal di jàngal daf leen permettre li ñuy def mu gëna a baax kon nak ñu ñew fi pour encourager leen. pour wax leen ne lii mooy yoon bi loo doonul taalibeem doo doon sëriñam jàng daf lay permettre ñu gën a mën a performer ci la nga xam ne moom lañ lay dénk ëllëg donc ñu ñëw fi en tant que mère ñëw fi en tant que sœur en tant que vraiment euh, personne euh, qui pourrait peut-être leur servir d'exemple pour ñu mën a xam ne ah même si suñu jeune âge aussi il est temps que ñun ñëpp ñu engagé wu pour que le Sénégal mën a jëm kanam. ba tax ndax xale yi jot a tàggat ñi jàpp ni seen morom wi war na ñi mën a bénéficier ki mel ni ñi ko gën a yaatal ci réew mi la. démocratie bi daan woon na droit émi ba fi woon nañ ko. mais sant yàlla xale yi taxaw nañ temb ginnaaw xam nañ seen droit xam nañ seen devoir xeex nañu ba alternance am donc loolu ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax di ñaax jeunes yi en tout cas ñu dem vers en tout cas uti xam-xam

nag ngir rek tarif douanier yu yokk nag ci jëmale ci seen directeur général bii di maam mbay euh, te mu nag wax leen ko ci ab bataaxal bu mu daal di bind foofu ca service ba yooyu les commerçants nag li ñuy naqarlu mooy li ñuy wooye concurrence déloyale euh, jëmale nag ci entreprise étrangère yi ñu teewlu ci Ndeelam Ndiaye euh, ak Medoune Mbaye

bañuñu ko de parce que dañuy fay tout temps suñuy taxe mais dëkk yi moo yàgg dañ ko war a renouveler ba nga xamante ni dina mën a méngoo ñun ak suñuy dem di jëndi à l'achat parce que yow da ngay déclarer sa dëkk yi doog dem jëndi à l'achat alors que léegi da ngay dem ba fële en ah, yaa xam fooy jëndee soo demee ba foofu ci ngay gis li nga li la neex nga jënd alors que fii dañ la déclaration préalable ngay sa dëkk ba pare doog dem mën dem fële gis choix bu la beneen bu la neex léegi ñuy def ñuy def mais suñu principal problème mooy suñu taxi yi ñuy tegal barème bii la ñu bëgg tam mënuñu koo fay dañ koo mënu nañ leen ñu woo ñu toog ñu wax suñu table ñu xam exactement nan la doxalee suñu commerce indiens yi pélule suñu marché bi feesu del di jaay détail alors que su dee jaay détail dàq nuñu ko ñun moom lañ daan def di importer di ñëw di jaay di jaay détail ñoom ñu indi des usines implanté ko fi di jaay détail jaaduwul voilà beneen kuréel bu am lu ko naqari mooy euh, kuréel nag bi nga xam ne moo ëmb marchand ambulant ya nekk ca Petersen maa ngi leen ko doon wax nag bi ñuy door ñoom nag amoon nañu ab jàkkaarloog taskatu xibaar yi euh, foofu ca centre culturel Léopold Sédar Senghor bu Pikine yile commerçant nag la ñuy naqarlu mooy jëlee ba ñu leen jëlee foofu fañ doon daane seen doole yi dara waralu ko lu dul travaux BRT ginnaaw nag seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi euh, njiitu association bi di Dame Badiane moom ak Marcelin Ndour euh, daal di nañuy euh, woo yile autorité nag ngir rek ñu daal di leen utal foo xamante ne fa la ñuy wëy nag di daan seen doole su lool loolu nag danañ dellu fa nga xam ne fa lañ fu nekkoon euh, fii ak tabaski ñu teewlu leen ki leen dékkoon seen micro di Mansour Diassé mais ñu gis ne depuis BRT bi ñëw Petersen ba léegi dañuy dund ay difficultés yu métti yoo xam ne dañoo jàpp ne loolu foo ko mën nañ koo saafara suñu bopp kon duñ oo duñ ci oo kilifa yi te lu ñu koy teg rek mooy kilifa yi nga xam ne tey mu ngi ci suñ kanam te war ñu appuyer ci lu bari mais dañu gis ne coono yi ñu dund yëpp ñoo ñu koy teg ndax yaa quatre mois ci gannaaw rek préfet bi nga xam ne moo fi nekk tey ñëwoon a def benn benn divertissement foofu ci Petersen jabloon suñu bagage yëpp ci àll yeen bi vidéo yi ñu ngi fi ñu amoon ci condition yu métti avant ñu ci jot mais alhamdulilah yàlla def na bagage yooyu yëpp jot nañ ci mais bañ ci jógee ñu foog ne foofu lay yem ki nga xam ne moo fi nekk di commissaire Rebeuss euh, ñu ngi si ramasse suñuy bagages yoo xam ne yóbbu na ko ba léegi nii kenn xamul fuñ ko yóbbu presque léegi ñu ngi dugg trois mois loolu nag comme jooytu nañ ko ba sonn te amuñ ci leçon loolu moo taxu ñu ne auto conférence de presse pour autorités yi Sénégal ñu xam ne am na askan boo xam ne ñu ngi sëfru sëfru gi métti ci réew mi te kenn tegu leen ko lu dul kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk. Petersen seen na gis nga la fa nekk boo ñëwee ñu responsable ñoo fa nekk ay marchands ambulants yu diiñ te moment bii ñu ngi jëm ci moment wu weewu tabaski te ko ne xam ne tabaski ak responsable yi la ciy xaar lépp nga toog ba léegi lalagu amagoo foo jaay ak lu lay xaar dafa métti moo taxoon ñu ne daal nañ jëm interpellé kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñu jéem a seet solution ndax ñun am nañ solution boo xam ne buñ ko discuté dana baax ci ñoom baax ci ñun baax ci réew mi ndax occupation énergie bi nga xam ne mi ngi am du ñun moo ñu gënal. ci Ben ben ayu bes euh, ya centre universitaire de recherche et de formation aux technologies de l'internet du Curie Amalon nañ ñomit ap jakarlo jàkkaarloog xibaari tay ci altine ji euh, ngir rek daal nakarlo nak dig yi nga directeur mom leen digone tay gisunu ci dara furaas yéeleen lu leen gëna ci Euh, théorie moo ëpp euh, pratique ci li nga xamante ne moom lañ leen di euh, jàngal beneen bi nag di ñàkkum jumtuwaay yu ñuy jëfandikoo nag pour mën koo jàngee looloo waral nag ñu bëgg lii lépp bu matul nag duñu ñu daal di bindi li nga xamante ne moom mooy seen grève suñu ndaw yi ñu fa teewloon di Amsatou Gano Sayor Junior Ndiaye étudiants yi nekk ci biir centre universitaire de recherche et de formation aux technologie de l'internet daanaka dañaa mer ba futtu tax na altine bi fële ci UCAD 2 ñu daal di génn ngir mun a yuuxu seeni nakar ndax ñoom jàpp nañ li seen direction bi jëfewul benn yoon lu ñu waxante woon ndax daanaka système LMD lañ leen digoon licence master ak doctorat waaye ginnaaw ba ñu jàngee ba ñetti at ñu gis ne DUT la am diplôme universitaire technologique li ni mel daal di leen métti lool. ñu depuis 2020 ñu nekk fii di jàng ba tey jii di ñu amoon benn benn jumtuwaay boo xamante ni ñoom dañu ko waxoon muy à ce que waxoon système LMD lañ ñuy defal. tey jii ñu dem trois ans ñu jox ñu ay attestation yoo xamante ni DUT la te ñoom ba ñuy ñëw ci centre bi dañuy waxoon kat système LMD mooy nouvelle licence master doctorat ba tey jii nii ñu ñëw jox ñu ay attestation bëgg ñoo ñibbiloo ngir seen direction bi dégg leen ñu tàmmali def grève àpp ko ba juróomi fan ak ñaar di xam li ni ci biir fan yooyu bii la direction war naa def ak kénte lay kàttanam ngir ànd ay saafara ci ponk yu ñu ngir àndi ay saafara ngir andi ay saafara ci ponk yu leen gën a soxal ngir andi ay saafara ci ponk yu leen gën a soxal. une semaine yi li nga xamante ni moom la ñu bëgg muy système LMD bi ak li nga xamante ni mooy étudiant mooy nouveau bachelier yi ñu am machine am li nga xamante ni mooy clé ISV yoo xamante ni moom moo leen mën a may ñu jàng sans sans problème. ñu wax ci wàllum mbote élection législative foofu ca Togo lu tolloog ñeenti million ci électeur nag dañoo demoon ngir euh, tànn euh, ka nga xamante ne moo leen doy ci ab député euh, dañu waroon na fal nag téeméer ak euh, juróom euh, fukk ak euh, juróom ci ay conseils régionaux ak yeneen ñoo xamante ne tolloo nañoo ko téeméer ak fukk ak ñett ci ay député commission électorale indépendante bi nag ci démb ci guddi ci samedi jàpp dimanche ci la xamle yi les résultats provisoires looloo waral nag union république formation politique au ñëw nag daal di raw ci jël raw gàddu gi looloo waral nag Aïssatou Ba daal ñu ciy defal ab njàngat ñu teewlu ko. fële ca Togo gannaaw bi nga xamante ne fësal nañ résultat yu njëkk ñeel élection législative yi nga xamante ñu ko doon amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub avril bi ñu parti bi nga xam ne moo nekkee parti l'union pour la république mo da di rek jël raw gàddu ndax ci téeméer ak fuk ak ñett siège ñun ñu bile parti da di nay akimo téeméer ak juróom-ñett ya juróomi siège yi des nag parti bi di l'alliance des démocrates pour le développement développement intégral daa dee jël ñaar sa des nak mu séddoo ci parti bi ñi nane alliance nationale pour le changement parti bi nga xamante mom lañuy dippé dynamique pour la majorité du peuple et les forces démocratiques pour la république taux de participation bi nak rombu juróom ben fukk ak ben ci ay pourcentage li ni mel nak firndal ne lu ëpp ñaari millions ci ay doomu Togo den nañ rek ji élection ngir joxé sen cadeau gannaaw bi nga parti au pouvoir bi General na raw gàddu gi ngir rek xam askan wi yëpp ñu koy deglu ngir rek promulgation constitution bu bes bi nga xamantene voté won nañ ko fukki fan ak ñent ci avril bi ñu génn bu ñu promulgué blé constitution nak juróomi député yi nekkee fofé ci l'opposition bi ñu bolé ko ak témé ak juróom-ñett yi nga xamantene nekk parti au pouvoir ñom ñoy tan ki wutu président bi nekk ci nguur gi. batay ñu desandu ci xibaaru bitim réew ma ngi leen ko don wax ci bi ñuy door nag ginnaaw benn ay bés ci ap euh, démantèlement ay dëkkuwaayu walaakaana ñu sellu nak ci région bu Sfax euh, yi autorité tunisienne nak daal dinañuy jël mbir mi en main ndax ay camp yu nekkoon fofu ci Tunis ben ci quartier d'affaires bu nekk ci bir lac bi boobu ca bi ci siège de l'organisation internationale pour les migrations la amee woon Fatoumata Seye nak indil nañ ci ay léral ñu tewlu ko rouge bu Tunisie daal di nag fekk ay nit yoo xamante ni ay nit ñu ñuul lañu te ñëw ci seen dëkk boobu ci ñëwin boo xamante ni jaarul yoon daal di leen fa nag génnee ci fee teg bët gànnaaxu Tunis ca banlieue boo xamante ni ndaw ña ñoo fa ëpp romb nañu ñeent fukk yoo xamante ni nag dëkkoon nañ fa ñenn ñi sax 2017 ba léegi ñu nga fa ab vidéo beneen di wane ne daal ñu ngi évacuer bu baax a baax ab campement boo xam ne nii ay migrants ñu nga fa ca parc au lac ñu ci bëri si ñoom ay weer ngi nii ñu dëkk foofee yeneen intervention yu mag a mag tamit amal nañu ko ci dëkk bi nga xam ne mooy El ak Djébeña feeteek càmmoñu dëkk boobee ci mante am mooy ñi nga xam te ni moom mooy njiit yi liggéey boobu nga xam ne ni tàmbali nañ ko di fa génnee ñi nga xam ne ni ñoom ñooy doxandeem yi dañ ci ànd nag ak waa dëkk ba rawatina ñi nga xam ne nii seeni tool gis nañu ne doxandeem yooyu dañ faa ñëw nag boof fa rawatina seen tool yooyu nga xam ne ñu ngi fay bayee olive ay junniy junniy doomu aadama nag manifester nañu sax sandi ñeenti fan ci weeru mai bi ñu nekk nii ngir daal di nag sàkku daal si seeni njit yi ñu jële fa képp koo xamante ni nit ku ñuul nga te toog fa ci toogin boo xamante ni toog bu jaaru yoon la ay ONG sax ñu ngi ragal ne daal ci frontière libyenne bi ak algérienne ba dina am ay migrants yoo xam ne ni danañ leen fa sànni ci Tunis nag ay migrants yu baree bari ñu nga ca kaso yooyu ñu tëj leen ay mandat de dépôt yoo xamante ni dañ leen koo dóor ñu bari ci ñoom bu ñu leen limee toll nañu ci juróom-ñett fukk ndax nag dañu gis ne daal dañu leen jàpp ne gekk trouble à l'ordre public. mbokk téléspectateurs yi kon euh, boobu élément moo buur euh, xibaar yi suñu gan tey nag nekk Absa Anne nekk membre comité directeur bu convention.